ay ndijaayam ak maamam yar ko ci diine yar ko ci lislaam yar ko ci taalibe xanaa da doon jëli deem rek mais Modou mosul dem stade xamul stade sax fu mu féete xale bu baax xale bu am ambition bu teel a yërëm ay waajuram teel yërëm ay fameem dafa metti dañoo yaakaar ne du nañ rey mais famille nañ rey famille lañ rey waaye li ñuy ñaan ci yàlla ki def li yàlla nañu yàlla àtte ak moom te yàlla na yàlla leeral lépp. Mm-hmm. ñuy wax bàjjen mooy baay nan nga ko yëgee yow. waa dañu woo papaam ndax papaam réseau canal lay liggéey mu guddee day fay téléphone am ndax client yi koy sonal ñu insisté di jaayam Tijaan woo ko ba sonn jotu ko ci nañ jotee kër ga sama frère bi mu fëgg sam papa rek laa ko ne jàmm xewal lu xew mu ne Tijaan moo woote ne Modou nañu agressé ñu woo papaam insisté jotuñu ko ci nañ demee fi mu wooyu ko mu ñëw àndak ak sama frère bi dem taxaw assisté ko yàlla def li gën mu metti nag mu metti lool moo di xale bu baax moo di xale bu baax korité mun naa ne am na fa 9 jour foofu lay passé fête turu famille bu amee tantam yi suñu leen ngénte lépp moo day taxaw ñu tàggatoo ma may ko paas mu delloo ma ko mu ne bàjjen maa la war a defal ma ne ko Modou dama laa mere lu tax ma lay may paas nga ma koy delloo mu ne bàjjen maa la war a defal xale bu baax xale bu am ambition nañu rey xale boo xam ne liggéey la ko ay ndijaayam yare ndax yaroo suñu kër fii la yaroo dañu am campagne maa ngi dégganteeg moom moo du dem nga mu wóor mu ne dem na dañoo dañoo war a dem Mauritanie mais su may ñibbisi di fa ñëw mu am armignon la bagage am yaa ngi ne ñu dagg teg lundi bi la waroon dem ñu rey doomu jàmbu ci nii. voilà mu nekk lu metti ndax bàjjen mooy baay te ku sañoon itam boo yaree sa doom ba mu toll nii ñu wax fukki at ak juróom-ñett fukki at ak juróom-ñeent yaakaar nga si leneen lu ñu jékki-jékki ne dañ ko agressé wala doon nañ ko bal mu gaañu. yéen bu rafet nañ amoon ci moom dund ba ñëwal fii li ko takkali soxna yéen boobu nañ amoon ci moom ñu def ko lii ki ko def lii yàlla na yàlla leeral mënuñoo wax parce sunu xol dafa fees waaw man damaa toog lundi ay boori 10 heures rek papa woo ma ne ma Modou daal dafa defoon accident démb ma ne accident mu ne waaye ni ma ko gisee daal nee nañ ma sonn na trop boobu nag sama cër yëpp nag damm nag mënatuma sax jug ma toogaat lu mat ay 30 minutes rek ma woowaat ko man maa ko woo mu ne moom Modou def na li gën boobu nag moom tiit na pression bi jàpp na ko ndax doom ak ni saxee ci xol ak xale bi ni mu yërëmee papaam li muy nekk nekk xale dafay yërëm papaam yërëm yaayam bëgg leen jàppale rek bëgg leen dimbale loolu rek lay doxee moom lay waxee xale bi musul dem làmb Modou musul dem làmb buy wax ak yow dina wax ak yow bàjjen di wax ak yow ba pare doo gis bëtam man Modou bi mu gaañoo nii laay xawoo ko gis bëtam ci photo day wax ak yow bu pare doo gis billaay doo gis bëtam nangu loo ko teg du bañ bañul dara looy wax ak moodu loolu lay def bala ngaa pare daw na boo tegoon lekk nii nga yónni ko bàyyi na lekk bi demal la xale bu am yërmande macha allah xale bu am xel bëgg mboqam bëgg fameem rafet wax nag li gën a jafe rafet wax xale bi loolu moo ko dal waaye daal xam naa ne ñàkk nañ daal ñàkk nañ doom joo xam ne daal ku amoon yaakaar la mébétam yaatu woon lool mébétam rëyoon lool foo ko fekk ay waxam rek dimbale sama yaay dimbale sama papa bëggul ku ko may dara bëggul ku ko jox moom pour moom lu mu liggéey rek te du lu mu liggéey rek fay bokk ak nit ñi waaw Modou daal xañ nañu daal affaire bi mu amee noonu nag dama tiit ma daal di woote jàmm gën ma ne Laurent xañ nañu doom doom ju baax waaw Laurent xañ nañu doom ju baax te da koo bëgg nii rek te musul dem làmb moom daanaka xamantuwul sax ko Laurent bëgg-bëgg rek la bëgg-bëgg rek bu xale bi amoon rek ci Laurent rek. mooy mbër mi doon bëre keroog te mu demoon si ji ko ñëw na fi jaale. waa ñëw na fi ñëw na fi moom tamit métti na ko métti lu na ko torop waaye tamit metti métti bi daal xam naa ne. am nañ ko daal am nañ metti métti bu baax famille bi yëpp am nañ naqar àdduna bi sax laay wax ndax xool bi xale bi ku ko xool rek xam ne kii ku set la taaliba borom daaru la waxul daray fo doxul demul fenn ci wetu yaayam rek foo ko fekk mu ngi ci wetu yaayam tàmm bu ñu tàmm nekk ci wetu yaayam nag moo tax yaayam bu manqué cinq minutes rek ci wetam rek da koy da koy yëg waaw ndax dafa toog rek xol bi jaxasoo xol bi jaxasoo jaxasoo jaxasoo rek mu tiit rek mu naan sama doom sama doom naan mbir yàlla rek doom dafa sax si xol surtout doom boo xam ne xale la waaye daf laa yërëm bëgg la dafa jafe dafa jafe dafa jafe wallaahi ñoo ko bokk hmm. metti na daal si ñun daal wax dëgg yàlla metti na daal bu metti jem rek fa la yem ndax de ku yàlla soxla rek lay jël te yàlla ñu baax ñi la soxla waaye demin bi moo metti demin bi moo metti moo jàpp xol yi demin bi daal jàpp na xool yi torop torop torop boo bëggee fàtte sax dangay xalaat xale bi ak ni mu doon def ak yow rek bu doon wax ak yow fii waxtu julli jot danaan bàjjan jugal ñu julli wala moom mu dem julli ci xale bu set la bu sell ku baax lañ yóbbu nag xaw ma kan moo ko def waaye ki ko def li mu ki mu yóbbu xamu ko de ki mu yóbbu moo ko bopp téeméeri junni yoon kon nag yàlla na yàlla leeral rek alors euh, affaire bi li ci garaaw mooy affaire bi am na dimanche lundi matin ma xëy def émission euh, ma gis ko ci euh, ci non non pas lundi euh, lundi ma def émission mais lundi ci ngoon sama cousine bi mooy rakku mareem bi jur xale bi woo na ma ci ngoon fekk bon xam nga man comme damay teel a xëy su ma wàccee ay après bi damay damay nelaw mais ma yow ma gis appelam bi comme nii rek comme sama cousine la ma naan astu dafa lakkale. xam naa dafa am lu mooy doy rek ci du ma ko sax rappelé parce que plaignant la nii laa ko waxee donc je l'ai pas rappelé euh, mais après nekk sama papa tamit essayé na ma woo ma xëy di def sama émission di def revue de titre gis tribune ñu bind ko ma naan leen gis ngeen làmb ji tout ce qui s'est passé ma ciy wax quoi y a quelqu'un qui am na xale bu ñu ci rey et tout ça te boobu yow xamu ne sama jarbaat la mais juste bi ma balaa may pare émission rek sama cousin bi mooy Tidiane rakku ñoom euh, rakku yaayu yaayu xale ba léegi fekk message woon na ma whatsapp après ci laa gis message whatsapp bi ma woo ko ci saa si mu expliqué ma après ci laa woo sama papa sama papa ne ma yow démb ba léegi maa ngi lay jotuma la ma ne ko waaw wax nga dëgg après mu expliqué ma ci laa jógee noonu rek ñëw fii directement donc voilà bi ma ñëwee ci lañ ma expliqué un peu circonstances yi et ce qui s'est passé mu nekk lu doy waar parce que gis nga violence bi ñuy wax ci làmb ji à chaque fois lu si ëpp day pare làmb ji ñii di def xaw ma simon la xaw ma yor seen paquet seen jaas yi nga koy gis si mbedd bi tey ñu dem ba faat bakkan am ci. waaw euh, d'abord euh, dañ ci sant yàlla d'abord parce que lañ jël rek delloo ko ci ci loxo yàlla xam ne yàllaa ko dogalee noonu mais li ci garaaw mooy Mamadou sekk mi génn àdduna c'était la première fois muy dem làmb mosul dem làmb parce que xale boo xam ne ne dañ ko yar fii ci kër gi euh, fi ñu ko war a yaree jàngal ko métier muy liggéey ak nijaayam Tidiane mooy nijaayam ñoom ñaar ñuy liggéey après sax mun ngeen dem jël bagage yi nga xamante ne moom moom lay liggéey fu mu nekk nii dafa amoon chantier normalement semaine bi daf ko waroon fekk mu ngi yem yóbbu ay bagage jàmbur bagage yaa ngi ne aluminium yi ñu ne jënd nañ ko ba pare parce que souvent bu ñu amee yenn liggéey moom day indi jël bagage indi ko fii ci kër gi ci mbedd mi fii lay jël daggali muy xamante dafa am donc moom la demoon supporter d'ailleurs juste bi combat boobu jeexee sax ci la génn di bi donc euh, pour ñi yaakaar ne peut-être xale boo xamante ne dafa nekkoon ci lu jubadi wala daroon doon taxawaal non non c'est un jeune comme tous les jeunes waaw non non non c'est un jeune comme tous les jeunes il était parti juste dem supporter mbërëm comme ni ko ñëpp di defee et puis ce qui est normal c'est-à-dire yi war nañu am droit dem seen loisir def ko ni ñu ko euh, occupé aussi bu ñu paree ñibbi seen kër tranquillement pourquoi il doit y avoir de la violence pourquoi nit ñi pour génn su amee donc pourquoi un un jeune ñu dem on parle d'agression d'abord après gis ngeen li autopsie bi génnee après ñu wax ko ne bal lañ ko dóor donc bal boobu fan la jógee. loolu foog ñu lijjanti ko foog mu leer ndey. parce que bal si si si combat dafa doon lu doy waar ba manifestation ñu ne bal perdu mais bal si combat après combat lu doy waar. waaw parce que Sénégal yëpp xam nañ fii moom bu dee simol yeeg xale yi ñu agressé xam nañ ne xale yi moom wax dëgg yàlla ñun de yëgguñ ku ci yor ku yor fetel di agressé euh, ñii ñii du simol yooyu moom ay jaasi la ñu yor ay paaka la ñu yor mais balu fetel quand même ñu door ko xale ci noonu ci ay te bal balu ginnaaw la donc ce qui ki doon dem la. wala ku doon daw la. moo doon dem ñu dóor ko bal donc du du balu kanam donc balu ginnaaw ce diir veut que ne kii dóor bal bi voilà xam na ne ñii ñu doon dem la ñu dóor et puis xam nga ndey c'est par la première fois wu Sénégal ne dernière on a vécu ça plus de 80 morts mais nag lii ci am solo ba am solo mooy décès wu Mamadou Seck bi du mel comme yooyu xam nga lu tax parce que li woon wooni na fii ku fi rayati nit dañu xam kan moo ko rey dinañ ko lijjanti parce que nul n'est au de la loi. bépp sénégalais boo xamante ne def ngoo xam ne du yoon dañ la war a teg ci yoon ba ñu teg la daan yi la war ñu xam que ne doomu jaamur nga rey nit njaay nga rey ñu ñu ñu ñu teg la daan yi ñu la war a daan. parce que nag on a voté un changement pour que ce pays change moi je suis acteur de ce changement j'ai été fier de participer à ce changement et je l'ai wax naa ko fu nekk nëbbutuma ko làqatuma ko parce que li fi nekkoon c'était du n'importe quoi ñuy r ay doomu jaamur kenn du ci wax dara amul enquête amul dara. te enquête yooyu yëpp sax dañ ko war a leeral ba mu leer parce que tous ces jeunes qui ont été comme ça ay yaakaaru la woon ay ñoo xamante ne seen waajur dañ leen a jur def ñoom li ñu leen def yaakaar leen donc nga xëy rek rey doomu jaamur mun ni noonu parce que la na ngaa sol tenue tenue boobu nga sol sénégalais ñoo ko moom arme boobu nga ko reyee sax moom armam la parce que alalu sénégalais lañ ko jëndee jox la ko donc lan moo tax tey ñuy utiliser ay armes et même c'est la question que je me pose yow nga jël sa pistolet tirer ci ñoom pour faire quoi d'accord kon affaire fi mu amoon dafa mën a ay policiers yu fa nekk. ah non je sais pas parce que comme je t'ai dit néew ma policier la wala gendarme waaye nag li ñu xam mooy Sénégal ba fii ba gisaguñu simool xale di simool yor pistolet ah yëngu ko wala bu dee yow yënga ko nga wax ma ko simool moom li ñu ciy gis mooy ay jaasi ay paak donc on on accuse personne mais on dit que ne bu fekkee vraiment vraiment. pistolet bi ak ko mënti tiir ak fu mu mënti jóge on vraiment que ça soit clair nañ ñu ko leeral ba mu leer parce que nag mbir mi duñ ko bàyyee noonu. loolu moom na leer ci bopp ñëpp waaw. bien sûr te yoon dinañu dinañ ko topp ba yoon may ñu li ñu war a am yëpp loolu amul sax demal ma ñëw loolu moom dinañ ko topp ba mu jeex incha allah. daal dem ñaari xaar mu sang xar ba pare mu dugal xar yi mu nekkoon mu toog fii mu dégg mu naan yaay maa ngi dem fëriñ dëkkoon caara atil léegi nag man boo ma gis sama biir léegi nag xam nga man dama dama feebar sax dama ABC dama feebar sama xarit ku mu bëgg ma bëgg ko mu bëgg yaayam yaayam amul gisu keneen loolu moom nekk sama doomu góor bi ah léegi nag mu ne la ko yaay ji boo toogee añ may ma may añ la yaay ji togg añ ba pare may ko gisuñu ko ba yeeru guddi daal man may gunge ñuy gunge gan mag yaayam yaam ñëw ba ci àngal bi daani xolam day metti ma ne ko ah, doo muut mu jor ko góor ku góor ki mun ko yaay kan mun ko man maa yaay mu ni Modou Seck mu ne mun seet ko seetoo seetoo seetoo ko ah lu xew ko ne sama doom dee na mu ko ah deewul daa waaye dafa sonn dama foofu ah, foofu daal lañ ko nga dem seet ko foofu yaay ji nag di yuuxuma tey ci moom yaay ji yuuxuma tey ci moom sama sama goro bi téye pota bi daw xale góor yi diw jam nañu muudu ay agresseur xale góor rek dew ñu defee ci télé bi la sax man maa mujj woo ma ne ko hey nee ma ci école xam fii surtout la nekk ah ñu daal di dem te moom bi muy dem dafa jàpp ba pare dafa génn ba ci biti duggaat mu jàpp julli ñaari raak moo jullee ñaari raak foo lañ ko gëj gis waaw ah, dégg nag man tama wax moom lu bari man daal li may ñaan kii ko def nii yàlla suñu borom feeñal soon nañu bi mu dee ba léegi mënuñoo lekk mënuñoo naan rey rey xale bi pare doo mën a jël sa doom suuli ku ñëw jàll rek nga nekk di jooy nañu dimbali lay rasulihi nañu dimbali lay rasulihi ñu xale bi loolu rek mooy sama affaire. man kay metti dama dafa metti metti nañ ma ci man torop metti fu metti yem rek yem na fi man dama nekk koo xam ne bu ñuy day kafa man di ree man bi muy dem sax dafa dafa jël sama misoo di ko man na ko man ko dama lay ñuulal damay jël ñuulal sa sa mu daal reetaan man yow ma nga re boo ñu nga nga nga bi sama misul bi nii daal def naa ko moom. Mhm. xam nga laa mujj mujj gis laa gis kanam gisatuma ah, lii la. lor na ma bu lor di yem lor na sama doom bi fu lor di yem xale bi lu mu for mu ni am. lu mu for mu ni maam am te moom arañoo baa ne arañoo mu ngi fële moom arañoo la liggéey masingam la yore te moom danaan bu affaire amee sax muy seetaan lam mu ni xoola lay xoola xale yi rek lu ñuy def te xoola xoola te xoola xale yi te moom ko ren jii lay am ñaar fukki at fukki at ak juróom-ñeent la des ah léegi nag bu demee ba lii am daf ñuy jaaxal mhm. loolu nañu de ki ñu lool nag bëgg nañu ñu xam ko ñu ngi ñaan ndimbal bu dee nitu nguur gaa ngi dégg sonn nañu sama doom sonn na sama doom mën naa jooy di jooy bucc waaye man sama xolal mooy jooy nañ ma dimbali loolu rek laay seet ma xam ko rek naa xam ñu ni kii di ma la yeex na waaw waaye rey ma ba moom am na doomu xam naa reyu dooma métti na de métti bu métti di yem. li xew nag xew na gannaaw yàlla dañ koy bàyyi si yàlla rek moo yor yëpp di ñaan yàlla leeral lépp tamit ni mu ko war a leeralee. xale bi li ma xam si moom lu tuuti te bariwul la maamam mooy sama xarit may ànd ak moom guddi di ànd ak moom bëccëg xale yi juddu fii ci sama kanam xale bi si sama kanam la juddu ba nii mu màggee. tantam bee sama kër lay sëy sama càmmiñ moo ko takk mu nekk sama kër di sëy waaye xale ba dafay ñëw su ñëwee nuyoo na dugg na wax ak tantam génn na dem na yoonam loolu laa xam si moom di siggi xool doomu aadama li ci des dimanche bi muy am problème bii fii laa yendu si di seet si maamam ba may ba ñu yegsee ñu ngi ko fekk mu sanga ay xaram sanguji na jàpp na dem na wax ak na tàntam tàggatoog moom dem man de lool laa xam si moom àjjuma comme ni tey su jotoon bu ñëwee sa kër ga toog fa waxtaan ba lu ba xolam sedd si tàntam bu jógee doomu tàntam bi lay jóg lay woo kooku sama borom kër lañ ko tuddee mu ne ko kaay ñu dem ñu jàpp dem julli ji man de xamee ma ko leneen lu dul loolu wax dëgg yàlla ni dangay wax rek te yàlla tax ci sama bàmmeel laa toog loolu laa ko xamee mosumaa dégg ñu ne xeex na mosumaa dégg ñu ne ku loolu mosumaa dégg si moom yeneen problème wax dëgg yàlla ndax boobu amoon xëy na ma dégg ko ndax damay ñëw si ñoom waaye masuma kaa dégg loolu daal man xam naa ko si moom hôpital tamit ñun ba affaire bi amee dem nañ ba hôpital ndax foofu lañu nekk ba ba une heure quelque ñuy doog ñibbi si waaye si guddi waaye wax dëgg yàlla teguma ko bët gisuma ko yéeg naa sixième étage ñuy wër ndax xamuñu woon waaye wax dëgg yàlla gisuñu ko ba ci lënd. kon moo la woo pour nga ñëw ba dem si hôpital bi. man tantam bi la woo tantam bi mu rakku yaayam mooy sëy suñu kër. tànta ji lañu woo. tante ji bi mu bi mu yuuxoo ci néeg bi man fekk sumeeku naa ba tëdd. tante ji ba mu yuuxoo boobu lañ ma woo ma ñëw. ma ne ko ma ne ko lii ngay def bu ko def dangay xool numéro téléphone foo mun a wootee seen kër mu leeral nu fan la ne mu woote mu jël rakkam bee mu ne sétéwoo la ne ñu jóg ñu jël taxi. dem ba CTO foofu lañu nekk bàyyi euh, une heure et ñu doog a ñibbisi. tante ñu ngi lay nuyu. yow ngay fay. ñu ngi lay masawu li nga xam ne Sénégal yëpp bokk nañ ko ak yenn yow Momadou di doom ci yow. sama doom la kay sama lépp sama xarit ndax moom laa njëkk jis ñun ñetti jigéen lañ mooy taaw moom la njëkk gis si sët bu nekk suñu taaw nekk suñu doom nekk suñu lépp. fu ma ko yónni mu dem samay doom fii lañ nekk samay doom moom nag lañ xam si kàmbaaw laay sëy su ma toogee chaque vendredi ma moo sekk te doo ma indi xale yi balaa may coupé jël oto indi xale tey kon ñun ñoo ñàkk. yow noo ko yëgee. man damaa ñëwoon fii ci 7 ci sama benn doom baay moo feebar ma seeti woon ko ba ma ko seetee hôpital ba ma ñëwee 7 ci suba bu kaa fekk mu toog sama néegu yaay ma ñëw jox ko sama doom bi may nàmpal man ko teel kii. sama ma maamam bu paree nga jox ko day ndékki boobu laa gëj a wax ak moom. ma dem seeti kooku ba guddi ma ñibbi si fii jël si sama doom ma ñëw fekk fii yaayam yaayam jour bu may gunge may ñibbi mu jëlal ma oto moog sama yaay ak sama jawro mag ba ma ñibbee ma sama doom man sama jëkkër man de li may santé sama xol kiiwul mun ma wàccee sa doom ba pare man ko di dem may ma woote ma woote jot sama yaay di yuuxu ma ne ko lan la mu ne ma moo sekk lañ agressé dégg ma coupé sama yaay ma daw wàcc woo chauffeur bi ma indi woo chauffeur boobu xaritam la ndax nijaayam bu liggéey moom moo leen yóbbu moom moo yóbbuwoon ma ñibbi ba kii moom koy tooñ si oto bi ba ma dugg ci oto bi mu ne ko xaadim wal ma Modou Seck fu mu nekk comme que yow sa xarit la. ba ma yeggee ma woote ñëw ma fii ma jubal tout droit CTO ba ma yeggee ba CTO ma fekk fa sama mag yu góor yi ma fekk foofu sapeur yi ma ñëw ma ne leen anam dafa garaaw sapeur bi ne ma déedéet garaawul dañoo cor fii tuuti rek ak fii. léegi ñu indi matalaati man lu si li ma fekkee foofu ñu indi malaat yi maa ngi dégg ñu naan ah ba bi ñu indi fii garaaw na de ma dem toog seen wet di déglu xool lu ñuy wax wante bëgguma xam ne ndax su ma bu ñu nee Modou mu naam ñu nëbb ma. ñu toog foofu toog foofu ba minuit ñaata ñu ne nañ dem réanimation ñu dem xooli foofu ñu yéeg foofu yëpp gisuñu ñu wàccaat ci suuf ba ñu wàccee suuf sama mag yu góor ne comme que une jot na kii foofu lañ ko fekk mu ne yéen ñii jigéen ñi kaa leen ñibbee ba suba wala ñibbee ba suba. ngir ñëwaat gis nañ ko ba tey ñun teguñu ko bët ñu ñibbisi ba ñibbisee ñu xëy 6 heures di matin ñu yeew ñu xëy dem hôpital ñu te sante maire bi di ñëwaat pour ñu ànd hôpital ma ne maire bi comme que démb dem nga guddee nga da ngaa sonn bàyyi man ak sama beneen mag bi say jeg saaw njëkkeem bi ñu dem hôpital ba ñemee hôpital ñu ne du ñu dugg bu ñu duñ dugg ma ñaan ñooñu ma ne leen kii mooy jur xale bi te démb ba tey nelawul si jooy la nekkee léegi moom may leen ko mu xool bu xoolee gis doomam si lañ ñibbisee si kër gi ba ñibbisee si kër gi ay une heure deux heures yooyu so lañ tàggee ne xale bi dee na te ñoom ay wax wax yi daal kenn xamul lu ñuy waxee ñii nee nañ dañ ko cor jaasi jël feer dugal ko ci bopp bi ba autopsie gé bañ defee autopsie bal lañ gis te normal soog bu amee même bu dee dara vélo sa moo la laal sapeur bu ñëwee war na def foofu kot sax médecin balaa ñuy jël nit war nañoo ne sapeur indi ko saa balaa ñu sauver xale bi wan defuñu loolu dañoo bëgg nag yoon def liggéeyam ak nguur gi mu waxoon rek dootu fi amati ba ñu jël suñu lépp jox ko mu génn mu wax si lii ndax ki ka rey mu ngi xool ay doomam mu ngi nekk ak yaayam mu ngi nekk kii lañ yaakaaroon menuisier armignon la bagage am yaa ngi ne mu ngi war a ànd ak nijaayam Mauritanie ba ba mu mujjee ñëw sama kër dafa ne mësuma dem Mauritanie damay dem Mauritanie liggéey. liggéey na kër sapeur sapeur boobu ñëwoon na ci sokam affaire am bi mu am fa hôpital. xol lay waxee parce que eh, rakku yaay yaay la ñu ngi lay masaw bu baax a baax a baax lan moo la gënoon a marqué si Modou. Modou nekk na si man doon jàng ba mu nekkee si man di jàng moo tax sama doom moom rek lañ xam ba mu jàngee ba ay sem 2 si la ñibbisee fii si nijaayam di liggéey. démb boo leen mënoon ñëw xale ñu muy ànd sax ay xale lañ démb ñoom ñëpp ñoo ko fi ñëw jàlle waa si Mbao moo du bañ na ba café sax du ko naan meew lay naan du tuux du naan moo du fu ma ko yónni mu dem kor gi da doon woote di tooñ yaayam naan ma bàjjan mu ne man bàjjan la ma wax bàjjan mu ne ko naam mu ne sama yaay moom ay soos ak lay togg toggoo ceeb ma ne ko su ma bëggoon togg soos sax yow yaa tax mu togg ceeb ñëwal nga ñëw ma togg loo bëgg Modou bu ñëwee tant que ñibbiwul sama xol di sedd dama koy topp si woon mi foo toll Modou mun ma yegg naa ma doog a xam ne daal bi alamin doom yi ma jur barki bàññees moo sekk ma ko gënal. <laughs> man ñàkk de sama doom yi ñoo ñàkk. <laughs> voilà mbokk yi ñu ngi nag ki nga xamante ne moom moo ëmboon juróom-ñeenti weer benn bés ñëw xaw ko rey muy yaay booy ñu ngi lay nuyu. maa lay fay ngi lay masaw métti na ma ma def ma métti fii sang ay xaram boom set ne ma yaay damay dem stade ni ko waaw mu ne dem stade mu dafa ma yaay damay dem Grand Mbao sama kër xarit. mu ne ko waaw demal te ñëw bul dem stade sama kanam tante bi ma def appaleur ma ne bul def stade mu ma waaw ndeke dem na xam nga xarit yi rek xarit yi rek xarit ne ko kañ dem naa stade mu dem xale la xamul dara mu demee stade ñu toog toog toog ba 5 ba ay kii yooyu ñii 20 ñu ngi génn di ñibbi ma gunge leen boo leen gungee ñu ñibbi ñu dugg oto ñu duñ dugg oto suma frère suma frère bi mooy ki ko jàngal liggéey. sëfëram euh, mu fëgg otoom bi mu ne ko xaadim dimbali ma si ma sekk bu mu dem stade parce que man bëgguma woon stade mu dem stade moom mosul dem stade bu mu dem mu ne ma ne waa bu naa ko woo léegi appel wax ak moom. léegi mu oto rek sama bi daal dafa mel ni am na lu ñu ma jam sama ginnaaw rek jàpp sama ween bi mu ne xam ma woote sama doom lan moo xew ba heure bi ñëwul far nijaayam di ko woo na nga papa ñibbisil ñibbisil amuloo carte d'identité ñibbisil yaa ngi dégg mun ko waa maa ngi ñëw kooku mu ko woowee nag maa ngi ñëw rek mu toog nee après ci la ñëw di daw di ñibbisi léegi man nag ci la bu mu géewee ba mu ñëwee ba ci kii bi ñu woo ma téléphone ma jë man ma man maa woote sama numéro doom ma woote sama numéro doom ma jot benn xale bu góor ma ne ko allo yow la kan mun ma man la sàppoor ma ne ko sama doom dee na lan moo xew sama numéro doom bi lan moo xew mun sa doom da am soog ma ne ko kon dee na nu ma déedéet dafa am ay agresseurs ñu ko topp. ñu am ko agressé ñu ko cor waaye li fekk ne yow am nga góor gu nekk rek sama jar mag këf téléphone bi fekk maa ngi yuuxu sama téléphone sax dafa am problème dafa am écoute dafa daanu ñu ko fi téléphone bi dugg ci kër gi fekk fi xale góor ñu ko moo dafa am dafa am kii dañ ko agressé ñun dañoo yàkkoon ci tali bi la sax ñoom ñëpp ñu daw génn ñu ko déedéet ñoo leen seete woo frère la mu su ma feree bi kenn xamul sax oto fu ne man oto bi taxawal rek demal loo ma laaj ma fay la ñëpp dem seete woo nee na gis nañ xale bi gis nañ ko <laughs> sa frère bi mu demee gis na ko. nee nañ mu demee nee nañ nee gis nañ ko waaye am na bu neexu la ko gisee ndeke gaañoo ne depuis biñ ko doole bal six depuis dimanche sa gaañu ñu leen di jëndaloo ay garab ñu leen jëndaloo ay garab rek. ndekki gaañu na depuis dimanche mu nekkoon agresseur dañuy nangu sa téléphone yàq sa yaram moom yaram bi yàqul moom bal lañ ko dóor ginnaaw mu këpp mu këpp nag xam naa bët bi nee bi ay la la ay la la yow gis nga ko hôpital lundi laa jóge dem fii lundi laa jóge fii dem hôpital ba ma demee hôpital. Mhm. ma toog ba sonn mënuma kaa gis. Mhm. léegi ma gis médecin bi. sama sama bi di ak médecin bi ne dimbali kii parce que fan yëpp mu ngi jooy day métti. Mhm. mu ci bureau mu ne sa doom ku la waxul sonn day fen sa doom sonn man médecin laa sa doom dafa sonn. parce que nekk sa xol bi mu deñ ma ne ko man xam naa rek ma yuuxu foofu mu ne gis nga li ma tax du ma la woon sa doom. naa la woon sa doom nag waaye da ngay taxaw ci fenêtre bi. ma taxaw ci feneen bi rek mu tujji feneen bi ma gis bopp bi yëpp ñu band ko kan gi daal dañ koo band sama doom na loo gisul ay bët dee na dëkk moom bal lañ ko jaar ci ginnaaw bal duruñ ñëw stade ñibbi ñibbisi moom yorul moto yoraanul moto ñu takkal ko nee moto bi ñi dañ ko moom dañ ko dóor bal la pare indi ji moto teg ko foofu jënd jënd euh, jënd lokos bes tàkk lokos baa ngi fii ma am mu am euh, lokos bi am am këyit tikkee ñu ne ma moo ko moom te sama doom bi yorul moto bu muy dem paas dem demee. kan moo leen wax loolu leen ah. kan moo leen wax ne dafa dañ ko agressé moto la yoroon ak yooyu fekk na yorul. ñoom ambulance ko wax ambulance yi ñoo ko wax. ñoom ñoo dafa fabrique si seen wax jël sama yëre doom sol yëre daaro borom daaro la sol borom daaro moom mooy sëriñam moom la sol yëpp moom la sol dañ koo summi te ñoom amuñu woon ak si sax waruñoo summi xale bi médecin mu waroon summi xale bi ñoom ñoo summi def seen lu ñuy def yóbbu yére bi comme si que kii agresseur kon coow li dafa dafa dafa jaxasoo parce que ñi dañ dañ ko agressé ñi ne dañ ko jàmbalu fistal waaw demee ñeneen dafa daanu si oto ñi wan ñeneen dafa daanu ci moto man lu ma gëm rek bal bal. autopsie la génne. bal la génne ah. xam nga moom autopsie moom mooy leeral lépp. di bal moom bool bal boo ko boo dóoree nit. numéro numéro bal. fu ne dañ ko xam ku ko dóor bal numéro bi dañ ko war a xam. sama doom ku ma yaakaar billaay moom rek laa yaakaaroon ci àdduna mu ne ma yaay su ma takkee jabar sama maam laa koy indi mu ne ko wóoloo de bu sama maam nga nekkal boo takkee jox ko sa maam naa ma man de tabaski bi dinaa ñaan sama papa ma ñëw si yow boobu mu ngi xalaat boobu mu ngi préparé porte portable mosuma ko xam code portable am la ko bind ci kaw ak turam mu ni sama doomu nijaay bi sama code portable mu ngi nii ak sama tur kooku ko lan la mu ne te garde ko rek sama doon dem sama doom maa ko judde musuma jooyloo musuma jooyloo Modou foo ko gis mu ngi ree di kaf di ree mu ngi kaf di ree di fecc ci kër gi amul kenn xar ma yàlla koñ bi yëpp nañu ma seede koñ bi yëpp boo leen defoon micro trois koñ bi yëpp xam nañ sama doom bi juruma doomu woyu juruma joolu bandi yàlla na ma yàlla àtteeg ñoom mais léegi mbiri li ci bëri coow mooy maa ngi dégg sax papa ji doon ko wax démb muy wax ne dañ ne woon dañ ko agressé ñu ne dañ ko dóor jaas ñu ne boppam dafa am feer mais bi autopsie bi génnee loolu amul amul dara amul ci bal bal baa ngi ci bal ngi ci médecin yi bal baa ngi ci médecin yi la ilaha illallah maa ngi yàlla daal yoon def liggéeyam sama doom bi ni ñu ko reyee nii naa teg boo kooku bët laa bëgg parce que moom du rey sama doom moom doom yi saa yu ñu yeewoo di gis ay doomam. doom yi dem jàngi sama doom yi yàgg am na yow waay yaay waay waay naa ngi doon Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10. sur le bouquet Canal+. Votre chaîne de tous les événements est au canal 228. Cette TV est également disponible sur le bouquet orange de la TVO.